Euh, premier point bi mooy nu ma leen ko waxee rek mooy euh, licenciement boo xam ne maanaam euh, dàq bu jaarul yoon boo xam ne actuel maire bi daf ko def ci ay agents municipaux yu nekk ci commune Kafountine juste ma ci wax te bugguma ci àddu mais daa fekk ne gars yi ñu ngi def ay commentaires yu xam ne demeewul noonu nous bëri dañ ma interpellé par rapport à ça euh, ma xam ne interpellation boobu noonu ak nu ñu ko waxee demeewul noonu parce que xëy na information boobu bu ñu am euh, du information bu baax moo tax tey ma bëgg a leeral ni affaire bi nu mu demee euh, nu mu demee mooy comme ni ngeen ko xamee rek ñun ñu ngi woon di liggéey ci mairie bi à un certain moment euh, bon booy bi on le suit donc euh, gaañu nañu may gis donc baax na donc euh, loolu laati jublu peut-être mu dem ci ñeneen ñi mais comme que leer na rek mën nañ dem donc dafa fekk ñu ngi doon liggéey ci mairie bi man agent ministre pour la gars yi à un certain moment comme ñëpp xam nañu élection moo amoon ba am nouveau maire mais ñëpp xam nañ ne ñun sous contrat lañ nekkoon am nañu contrat ñu doon liggéey foofu ci maire bi mais lu bu lu taxoon surtout surtout ma bëgg ciy wax mooy information bi demeewul nu mu war a demee notamment ñu ko war a communiquer communiquer wuñ ko nu mu war a demee donc dañu falsifier information yi bañ expliquer gars yi dëggantaan nu mu demee euh, ñun bu ñu nekkee ci contrat man année bi US mooy sama deuxième année am na ñoo xam ne un an lañ fa def donc notamment bu ma duggee ci deuxième année bi euh, CDI lay doon maanaam contrat à durée indéterminée alors euh, suñu contrat yi dañ ko yóbbu woon avant avant élection bi di am donc depuis bu ñu ko yóbbee parce que dafa tardé woon contrat tardé au niveau de la secrétariat fofu la tardé won et bu mu tardé fofu vous. Euh, maire sortant bi docteur François Victor Diata moko déposer au niveau de l'inspection du travail contrat est tardé fofu tardé vous tardé après élection euh, donc bu mu tardé fofu après élection euh, nouveau maire bi moom bu mu ñëwee fekk na euh, agent yépp a ngi foofu donc ñu def ay réunion prise de contact fekkee politique bi weesu na donc je pense que politique ak liggéey dañu wute donc bu mu ñëwoon amoon nañu prise de contact waxtaan nañu mu rassuré ñëpp nee ne moom du dàq benn agent euh, municipaux l'a municipal donc mon du dàq ben agent parce que képp ku fay liggéey képp ku fay yeewoo doom commune bi la lu jàdd jàdd na mu suñu ginnaaw lu ñuy jublu mooy liggéey ñun tamit ñu déggee ko noonu on s'est mis au travail ni la demoon Mo amaat réunion ak chef de village yi mu la même chose Mom ñu fi fek, ñu mu fi fek. ak ñooñu lay liggéeyal du dàq kenn gaa yi déggee ko noonu ñu rafetlu ko mu dem ba mu koy wax sax suñu autorité yi notamment sous préfet boobu yépp yéegoon nañ ko réunion yi amoon balaa muy toog juste après passation de service bi mu wax ko encore maire sortant bi sax mu rassuré ko ne moom du dugg ci yooyu mais malheureusement euh, xëy na pression la am ci ginnaaw je ne sais pas ou bien mo bëgg affaire de fayantou lool yëpp amul problème ku nekk yaay xool ñi nga bëgg a liggéeyal ñun foofu waxuñu ko mais nit da ngay sàmm sa kàddu nit da ngay sàmm sa kàddu li nga wax danga ci war a taxaw parce que ñun lu tax ma ci àddu surtout ñun depuis boo xoolee depuis mars kenn déggul ma wax ci man samay intervention dama koy def kenn déggul ma wax ci ñun ñi xam ne ñun ñu ñu ñun la dàqoon kenn waxu ci kenn kenn kenn kenn waxu ci mais comme que kenn waxu ci ñoom au lieu ñu ñu màndu ci ñu wax ci moo tax man ma bëgg leeral askan bi ni mu demee parce que da ciy baax euh, gis na bu mu euh, bu ñu liggéey liggéey liggéey liggéey mu recevoir ñu euh, ñun romb nañu dix à peu di benn dizaine mu ñëw mu wax ñu ne mu jël kenn par kenn mu ne ñu inspecteur dafa rejeté suñu contrat yi a inspection du travail dañu rejeté suñu contrat yi maanaam contrat yoo xam ne euh, le maire Sonta boobu la déposé avisé wuñu ko notamment si ñëwuñu ko ñu ne ko accord léegi man personnellement dama ko laaj léegi comme que wuñu ko loo ci jublu parce que man damay bëgg lu leer mu ne ñu ah moom daf ñu woon kessé ou daf ñu woo pour won ñu né contrat yi ñu ngi fofu mais avisé wuñ ko loolu kese la mais nañu continuer liggéey bi bu ñu continuer liggéey bi mom dina am décision boo xamné après mom dina ko jël mais mom du du dakh kenn ñu né ko en bon mu né waaw mais ci notification bi dafa bind né dañu liggéey ba wèr bi dé mom dina jël engagement fay mois de mars en attendant muy jël décision

maane Salimata Diallo bu euh FM euh, quatrième bi mooy Idrissa Jiba dama bëgg mu leer non la demee man personnellement man dañ ma fekk sax maa ngi bureau maa ngi liggéey parce que moi bobu noonu dañu nekkoon ci opération on a fait de telle sorte que man sama performance depuis buma nekké ci mairie bi moi bobu la sama performance gën a parce que defoon n'a recouvrement est xamné 1,7 million 700 et quelques. lu war lu millions bi xam depuis buñu est performance nous Musulon am en un mois donc xam ngeen ne bu doon liggéey kese liggéey nañu nuñu wara donc du ci cadre te boobu noonu bu bu may bu muy yónni secrétaire bi pour mu mu mu mu dàq ñu daa fekkoon euh, quittance bi mu ngi ci man mooy euh, reçu yi ñuy bind euh, jakarta mais nii bu ñu fayee affaire yu reçu bu ñu leen di bind quittance yi maa ngi ci man xaalis bi maa ngi ci man ci biro lañ ma woo pour wax ma loolu bu doon keneen mën na ñibbi si jël plier bagage bi indi parce que maa yoroon maa yoroon quittance bi yoree xaalis bi ba ñu ma laaj lu xew ma expliqué leen mais dama xam ne euh, foofu noonu commune bi moo ñu ci teg te bugguñu ci bugguñu parce que loolu bu ñu ko defee coob bi encore na ji dina dina jóg te nañu waxaat booy bi wax na comme des fois gars yi euh, ku fay lañu lañu la ñu xam gis ñu ko ku tooñ ma denc affaire yi def sama situation def sama rapport déposé jamono ñooy ma ñibbi te kenn deful dara léegi noonu. Licencement abusif il yamul ci lolu de bu yamone fofu sax mais ñun depuis bu ngoyé inspection du travail ñoo rejeté contrat nous ñun ñi xamné nous la wax né dem concerné plus de 10 personnes ñeneen ñi di compter liggéey mo ciblé ay nit ñu bon fi y'a problème ci nous organiser ñu dem au niveau de l'inspection du travail ñu dem ak inspecteur parce que quand même nekkul di wax ak nit yu xam ne jànguñu dafa jàng dañu jàng dafa dem université dañu dem université donc yooyu noonu moo fi jeex ñun ñu dem inspection du travail ñu rencontré inspecteur mu wan ñu contrat bi contrat yi yëpp mu ne ñu contrat yi yi ngeen di wax diw ana diw ñu ne ko diw mu ngi nii ana diw diw mu ngi nii ñeneen yi ñu xam ne ñëw ñu ñu ngi foofu diw ak diw de seen contrat yaa ngi nii man rejeté ma benn contrat ndekete copie contrat yi ñu ñu bàyyoon foofu yooyu lañ jël ñu photocopier mu ñëw woonuñu euh, mu ne ñu ko inspection du travail mooy rejeté contrat yi loolu dèjà amul kenn rejeté wul contrat dèjà loolu amul parce que inspecteur daf ñu wax moom moom inspecteur rejeté wul benn contrat mu ne ñu décision bi seen maire moo koy jël mais bu mu wax ni man dama rejeté benn contrat rejeté wu benn contrat bu ñu ñibsee balaa ñuy dem sax dañu saisiroon euh, autorité yi nekk fii. sous préfet demoon nañ fofu expliquer ko mu ne nañu def affaire bi ci dialogue waxtan ak mom ñu gis dem ci euh, commandant de brigade ñu fekk fofu adjoint bi waxtan ak mom mu wax ñu euh, commandant bi si je me rappelle dafa génn ou bien mu ngi ci congé quelque chose comme ça mais mu def ñu ñu waxtan ak mom expliquer ko mais ñom lu ñu waxal est-ce que duñu rencontrer rencontré bi waxtan ak mom mais mom ci boppam bugguñu won rencontrer parce que moom xam nga muy jël décision day daw day tukki après jël décision moom noonu lay def mooy ginnaaw daf ko def euh, bu mu dawee bi pare mu jël décision bi amul problème indi ñu bu ñu génn donc euh, moo tax euh, moom décision am yi jarul dóor sa doom kàddu am yi jarul jarul dóor sa doom parce que déjà moom daf ko daf ko daf ko wax. mu mu wax ci kanam gaay yépp lii ak lii ak lii ak lii la lii lay def respecté wu ko donc ci loolu kese kese kese euh, du du quelque boo xam ne day tenir langage am lépp lu muy wax comme moom populiste la day wax rek di wax rek di wax rek bu tàngee moom day wax rek waaw ñun bu ñu nekkoon ci réunion bi yàggoon na man moom sama tur moom yàggoon na yàggoon na ko wax

mu xaar mais depuis bu ñu xamee ne dëkk bi am na yoon ñun tamit ñu dem ci yoon ñu déposer suñu plain parce que am na yenn manque de respect la parce que anam yu yu yu yu mu ko doxalee bu ko defee pour keneen keneen tamit nu la réagir heureusement ñun commune bi moo ñu ñor moo tax ci yoon lañu dem bu bu ñu demee ci yoon. won wax na waxtaan nañu déposé nañu suñu kii première convocation bi demul deuxième convocation bi demul ba troisième convocation bi mu soog a dem mu mu soog a yónni avocat mu jël avocat donc bu mu yónnee avocat bi avocat bi mu mu kii bi euh, mu pour dem étudier dossier bi bu passé bi décemment rek rek rek ñëwaatul ti vois avocat bi ñëwul xëy naa defa étudier dossier bi mu xam ne mooy loolu.

mun autorité munoo am beneen ranqueur bi xam ne lu weesu yow munoo ko digérer parce que boo xoolee ñu ñu mu ciblé yëpp ñu ne ko ñu xam ne dañuy jege maire sortant la parce que man balaa loolu di am sax am na ñu xam ne dañuy ñëw ñu wax ma ko nii carrément mun ñu ne ma yow ak diw ak diw di ngeen génn carrément fekkee sax génn wuñu parce que lu déjà moom bu mu muy toog xëy naa bu ñuy waxtaan seen biir daf ko daf koy wax ay nit nii ay ay ay grand wax nañ ma ko nii yow ak diw ak diw di ngeen te effectivement loolu la demoon ñun dañ jotoon information avant sax muy jot donc nañu bàyyi xel am na yenn yi xam ne autorité du ko doxal autorité du du du nekk rancunier booy jiitee da muñ Victor fii la nekkoon amul lu mu déggul mais dafa muñ loolu lañuy ñuy xaar ci njiit njiit da ngay muñ munoo xool parce que politique moo weesu diw lii la war nga jàppee ko éternellement eh man ma euh, am na ñu xam ne xëy na ñu xam sama kii ñeneen ñi dañuy dañuy dañuy gis sama samay sorti euh, ñu yaakaar ne peut-être xëy na Victor bugguma ko tudd sax walla euh, mairie bi moo tax ñuy ñu koy défendre walla leneen ak leneen. pour rappeler leen rek élection municipale yi passé 2014 fekkee ñun ñu ay étudiants la ñu woon ñëwoon nañu depuis temps boobu lañ ko soutenir man musuma ko laaj benn affaire benn dërëm musuma ko laaj benn nomination musuma ko laaj musuma ko musuma ubbi sama gémmiñ ma ne ko bëgg naa liggéey ci mairie bi moom moo toog à un certain moment mu ne ma ma ñëw booster leen ci côté euh, recouvrement ok donc noonu la fa demee. Euh, wax leen rek li li ñu leen wax ci côté boobu dara du ci dëgg lii mooy dëgg bi bu weesee loolu damay ñëw rek euh, un peu ci yenn nomination yi xam ne daf koy def parce que des fois day gëmloo yeneen boo yi ne mën nga liggéey fii di jël di bind ñi ñi ay engagement engagement boo xam ne dugul trésor ñoo coono kese la loolu moom la concerné loolu man duma ci addu mais lu leer ba leer moy du du ñak liggey du ñak respecter heure looloo tax mais affaire fayantou la mais loolu acte politique la mais di dinañ fekk ci terrain bi parce que ñun bo gisee mo wat mo wax ci depuis bu mu amé ñun mosuñu ci wax depuis man samay sortie ku nek gis na né man dama bok ci ñu fi dakk sortie mais dañ ko bëggoon bàyyi mu liggey dañ ko bàyyi dañ ko bëggoon bàyyi mu liggey parce que looloo tax ñu teg ko fi parce que nit ki tamit bu doon sa commune moo la ñor munoo munoo munoo di doxal yenn yi yenn doxal yi munoo ko munoo ko doxal donc liggéey a tax mu fi mu nekk fii moo tax ñu bàyyi ko mu liggéey mais comme que kooku dañ ko bàyyi mu liggéey moom en tant que ko xam ne moom doxal au lieu mu mu yem ci doxalam yi ñoom élément yi ñuy attaqué ñoo xam ne nañu ba pare loolu duñ ko ko pardonné ñun ñoo waroon toog fii di di di di di ko di ko critiquer mais yow munoo nekk ci affaire yi di encore di critiquer ay ñu xam ne génn nañu heureusement heureusement pour ñoom ku ñuy faral di di di di tooñ du ko xam ne ko eh, day wax parce que euh, Victor ku nekk xam na ne boroom jàmm la yenn yi du ci dugg comme du wax mais foog ngeen xam ne qu'il n'est pas seul trop c'est trop. mënoo leen toog fii moom bu mu nekkoon foofu ngeen critiquer critiquer ba mu jógee foofu ngeen remplacer ko au lieu ngeen liggéey ngeen toog fii encore di ko critiquer loolu duñ ko may kenn il faut mu leer donc euh, loolu weesu na damay won gaay ni rek dàq bi nii la demee.